seet si waat suñu xarit suñu jigéen macha allah waaye itam suñu sang bu nu ko waxee itam la koy waral mooy kenn ku ne xam na ko ci soxna Mariama si mu sëriñ Babacar si jamono xat-xat yeeg ñàkk toog beeg yu ni mel tax nu gëjoon a gise waaye tey siwaat nañ njëkkanteeg waxtu wi bëgg a waxtaane waat ak moom lenn ci xam-xam ngir jagleelaat ko askan wi nga xamante ne saa su ne ñu ngi koy bàyyi xel rawatina mbékk mbokk internet yi nga xamante ni dañ koy wéttalikoo foofee ñu ne ci bitim réew kon soxna Mariama ñu ngi lay nuyu di la ziar macha allah waaye itam di la dalalaat ci biir jotaay bi macha allah. waaw sànq la ñu ngi lay ziar di lay jox sa yéeguwaay. Mm-hmm. jàmm. di lay ñaanal sutura ndax xam naa ni gars yi namoon nañ ko. Mm-hmm. naan asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di nuyu mbokk Sénégal di nuyu mbokk àddina. Mm-hmm. di nuyu àddina wërngël képp bàyyiwuñu kenn. ndax bu ñu limee dañuy juum. ñuy sant yàlla na ci weer wi nga xam ne weer weeru sell muy weeru gàmmu mais mm-hmm. ah, weeru mawlud mm-hmm. muy juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe naa burdu bi ébbi na boobu ba ñu ngi burdu kon loolu yëpp sant yàlla te tawféex la mm-hmm. damay ñaan yàlla bu mu suñu mujjël bi gàmmu yàlla nañu ci yàlla defal ay tawféex defal ñu ci ay ngeenal ci barke Seydina Muhammad ci barke Cheikh Ahmed Tidiane waaw di ñaan yàlla defal ñu ci ay tawféex tawféex di ñaan itam mbas mi yal yàlla teggi ko fi ndax ne naa mbas mi wër na àdduna wër nga képp mhm. te nee naa jaaxalul yàlla waaye ñun jaaxal nañu mhm. ndax bi mu ñëwee ba tey mhm. lu dégg nañ ko lu ne gis nañ ko ci mais yàlla bi nga xamante ne umpalewul dara yàlla ji nga xam ne moo matale lépp dañ ñaan yal na ko fi yàlla jëlee ñaan yal na ko fi yàlla teggi ñuy dem ba kaw Kaolack di leen di nuyu di leen di ziar ci barke weeru gàmmu gi ah, di dem ba Tivaouane di nuyu suñu xalifa général sëñ Bay Si di koy jox wàccuwaayam di koy ñaan yal na yàlla oyofal leen bi yal na ko yàlla téyal boppam mm-hmm. yal na ko yàlla sàmm yàlla yàggal ko fi mm-hmm. ndax nee naa yàggu fi waaye def na fi loo xamante ne macha allah te ñun tamit nee naa comme ay taalibe lañ dañuy jëfee yëfi taalibe rek mm-hmm. te gàmm gi lii mu ci wax dañuy topp ci ndigalam ndax nee naa taalibe day jëfee ndigal taalibe day wéyee ndigal te comme moom mooy suñu xalifa général te moom la ñu am lépp lu ñu digal ñu tere ñu bàyyi ko lépp lu ñu tere ñu bàyyi ko ndax nee lii nii mu def nii nga neen la sant yàlla tawféex la kon si Malick si Demba ak na loo dund doyul dundal cent ans sans ordonnance ci barki sama maam Maodo mhm. ñuy dem ba Touba di leen di ndokkeel ci màggal gi màggal gi taalal mhm. tawféex la sant yàlla la di ñaanal sëñ bi xalifa bi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké mhm. di koy ñaanal yal na fi yàgg loolu te wér mbàkk bi yàlla ay sa di ñaan yal na ko yàlla dëgëral di ñaan yal na ko fi yàlla saxal di ñaanal soxna Baali mu taxaa moom tam yal na fi yàgg lool te wér xattu jigéen ñëpp la moom macha allah mm-hmm. di nuyu kulli koo xam ne mooy këru diine di fay yegg di leen jox seen wàccuwaay te di yeesal suñu yëbbal di yeesal suñu taalibe mm-hmm. ah, di dem ba Yoff di massawu xalifa général bi mm-hmm. ah, ndax tiis boobu nee naa ci kaw àddina bi yëpp la dal ñu ko koy massaw bu baax a baax njabootam yooyu génn àddina te di leen di ñaanal fañ jëm mm-hmm. yal na yàlla oyofal suuf seen kaw mm-hmm. yal na leen malaka yi yërmande teeru yal na leen Seydina Mohamed sangu-sangu yi teeru ci barke yoon ci yàlla Mohamed yàlla na ko joxal seen maam ju sell jooj muy max diwu mm-hmm. uh, yal na leen ko yàlla joxal ci barke yonent bi yal nañu fekk seen maam ci àjjana yi gën a kaw muy àjjana yi firdaws yi yàlla defal leen jàmm fañ nekk uh, yàlla yërëm mbooloom bi jullit di ci ñaan suñu ñaari waajur ñoom tam fañ tëdd yal na suuf oyof seen kaw ak kulli koo xamante ne dañu ñëw jiitu mm-hmm. ndax nee naa kenn dëkku fi mm-hmm. kenn dëkku fi dañuy ñaan rek bés bu ñëw yal nañu fekk ci lu baax fekk ñu ci mm-hmm. yàlla fekk ñu ci ragal yàlla ci barki Seydina Muhammad ñu jiitu ñëpp yal na yàlla yërëm leen yàlla xaar leen àjjana képp ku nekk ci bis ñu ngi lay masaw bu baax a baax Seex Taala naan leen bismillah kër gi seen kër la di nuyu Samba di nuyu kulli koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu di ñuy bàyyi xel di nuyu waa bitim réew ndax Taala ñeme wuñu fee toog te duñu leen nuyu ndax dañuy bàyyi xel saay su ne dañuy bégee di eh, dañuy am ci ñun confiance mhm. kon mënuñoo toog fii te duñ leen gërëm mhm. ndax confiance bi ñu am ci ñun ñun bi ñu am ci ñoom moo moo ko raw ndax nee naa ki nekk bitim réew jaaxle mhm. te yaakaaru lu dul ñun ñi di wax ci internet di ñuy déglu di ñuy bàyyi xel di taataan suñuy xel ñun tam ñu ngi leen di nuyu di leen di jaar di leen jox seen yéeguwaay ñoom ñëpp incha allah barki yonent bi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf soxna Mariama Sy mu Serigne Babacar macha askan wi namoon na la euh, téléspectateurs yi namoon na la auto euh, internet yi itam namoon nañ la waaye man ci sama bopp itam tubaarkàlla euh, si namoon naa la lool macha allah rabbi su ko defee rek ñu njëkkanteeg waxtu wi bokk na ci léegi fi nga ko wax foofu laa bëgg a tàmbalee ndax ñaar la yoo xam ne ñoo ñoom ñoom laa toftaloon bëgg ko ubbee benn bi wax nga ko muy Tiwaawan ñu gis ni sang bi xalif général bi ñu ko ñaanal sama borom dolli ko taxaw te gën a guddal fanam te te tey ñal ko yan wi ndigal li nga xam ne joxe na ko ne maanaam nga naaw fi mu ne yàlla dafa dogal mbas mi ne ci àdduna bi wërngal këpp ba tax mu ne moom daje bi daal gënalu ko ba tax na bu sañoon kenn ku ne toog fa nga nekk gàmmoo fa te defe naa itam na mu joxe ndigal kenn ku ne dina dina ci am yool ba bu ko fa toogee waaye ki nga mujj tudd muy Baye Ablaye Thiaw Laye Maxtaar mu koy jaaraat bu baax di ko ñaanal sa borom taxaw ko gis-gis ngay am ci ñetti doomam yoo xamante ni dañoo wàcc wàccandoo liggéey ci benn ci benn 24 heures kenn ku ci ne bokkut ak sa morom fi mu ne ñu xam d'accord ne ndogalu suñu borom la waaye ndogal ba. dafa mel ni daal am na am na am na xew lu ci xew wala de wala yow ban gis-gis nga nga ci am gannaaw yéen da ngeen ni seet da ngeen ni tëdd suñu borom de am yu mu leen wante nangul nañ leen koy tam taala dañuy sant yàlla julli ci yonti hmm. naa lu metti lu ne yàlla yonti yàlla Muhammad a teg xool ci moom rek hmm. lu la metti boo geesoo gis Seydina Muhammad rek sa hmm. xol day delluwaat ci yàlla ndax ne naa njabootam boobu yàlla moo ko joxoon kon yàlla su soxlaa jaam dafay ñàkk nee naa yàlla rek a mën mhm. jaam mënul dara mhm. waaw ndaxte nit su génnee àddina da nga koy ñaanal fa mu jëm yal na suuf oyof ci kawam nga ñaanal ko fa jëm yal na gën yal na ko gënal fii ñu nekk mhm. ndax taale nee naa àddina neex na mais àllaaxiraa ko dàq yàlla boo yàlla boo dee dugg àjjana moo dàqati lépp fan loolu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na métit la tiis la te dañ ko koy massa waaye ndogalu yàlla suñu borom la mm. du lu nit sabab lu dara yàllaa la bind ñoom ñëpp ñu bokk benn waajur bi leen jur mm-hmm. yàlla dogal ñu génnandoo ci ñoom ñett ñëpp ci benn 24 heures metti na mais dañ ko koy massaw taala ndaxte mm-hmm. nit du dal ci tiis ba pare ngay wëlbatiku di cee waxaat leneen loo xam ne lu savaanoo la mm-hmm. ndax nee naa dee dafa diis rawatina nag yéen ñëpp ngeen bokk benn waajur bu leen sukk jur mm-hmm. euh, kon loolu xam nga ni sant yàlla rek laa ci mën a wax daal ñu ngi leen ñaanal fañ jëm yal na gënal leen seen fii ñu jógee jërëjëf soxna Mariama si ci leeral bu am solo boobu bokk na ci itam fi ma bëgg a dugg rek euh, actualité laay laal ndax euh, <laughs> maa ngi li tax ma sañ ko laaj mooy xam ni am na loo daan liggéey ak Ndella Madior juuf am na lu ngeen seqoon tey jii en tant que yow nit responsabilité bi ne ci yow ndax moom responsable la waaye responsable bi ne ci moom tey bu fekkoonte ne foofa nga taxawee tey jii ban gis-gis nga am ci kàddu yi nga xam ne dégg nga ko mu wax ko ci fan yii nii ni nga xam ne moo lëmbee réew mi moom. <laughs> Talla man boo may laaj ci ndeelat <laughs> dama ci sawar a tontu. Mhm. ndax nee naa xëy na doon nañ sekkoon nañ liggéey sekk nañ jàmm sekk nañ sutura. Mhm. waaye daal li wax man. Mhm. damaa part soxna Mariama rafetlu ma ko daal. ndax ndeela kilifa la. te Ndella itam nit ñi dañ koy déglu te porteur de voix la mhm. kon bu la nit ñi di déglu dafa kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee mu doon teggin mhm. ndax ne naa soo toogee ci rajo di wax bala nga toog ci télé di wax mhm. war nga wax loo ne day jariñ nit ñi ndax fii xam ñëpp xam nañ ni kuy wut jëkkër dangay wut ko la satisfaire dangay wut koo xamante ne moom moo la mën a jàppale moom moo la mën a taxaw ndax te loolu tax nit di wut jëkkër ndax bu du woon loolu kon ñu toog suñu kër yaay suñu kër baay ñun ñëpp duñu sëy waaye wax jooju xëy na yëg-yëg la am ndax moo xam ban cofeel la am wax loolu mais lañ ko jiiñ ak lañ ko wax jarul woon mu yegg foofu Mhm. ndax bañ ne na diw nangam ku jiitu oto bi jiitu rek lañuy la ñuy klaxonné kon moom moo nekk ci kanam kon dafa war a nangu ndax ndee la mhm. ñaan yàlla ci li mu wax neen dafay ñaan yàlla nekk présidente de la république neen mhm. day ñaan yàlla it jiite Sénégal te koo xam ne dafay jiite daal am na yoo xamante ne ne waroo ko wax sax mais xëy na xalaatam moo toll foofu ak yëg-yëg gi ci am rek waaye daal moom wax ja yéeme na doy na waar comme ñun moom dañuy sëy <laughs> ñemewuñ ci xuus waaye daal wax doy na waar <laughs> yéeme na daal waaw waaw yow bi ko déggee bi nga déggee wax ji yow dama tiit te yow parce que yow yow moom sa jëkkër la yow sa jëkkër la moo tax waaw man dama tiit xam nga lan moo tax ma tiit taala <laughs> mhm. ndaxte gis nga wax mhm. dafa laaj dégg-dégg te dégg dégg boo ko déggee mooy lu xóot mhm. kon nag ndeel bu toogate di wax na saytuwaat li muy wax daal waaw mhm. ah, na xoolaat li muy wax ndax loolu nga wax day dëgg am nañ jaar-jaar ju rafet macha mhm. allah mhm. mais daal bu toogatee na xam ne yaay la na am na wax yoo xam ne mu a supporté rek te xam ne ñun ci wa sallam doon ci am solo loo xamante ni ni nga ko waxee li tax ma indi ko mooy dama xam li ngeen séqoon xam teraanga gi doxoon seen diggante lépp moo tax sax ma sañ koo indiwaat moo tax bokk na ci tamit bala may génn ci actualité bi gis nañ fi barki démb ku mel ni sumbulu ñu takk ko du ma wax wax sax naan ci sëriñ bi mu ci wàllu sëriñ bi ko takk ak yooyu duggaguma ci mais nu ni may nañ ko juróom benn million ak or yu bari ca ay fan ñu ni Mbaaco Njaay may nañ ko fukki million may ko jamaa may ko lu bëri ba tax na tey jii ñi ngi dégg ki ci mel ni beneen waykat bi di Guigui nee na moom day xaar euh, soixante six cent millions lay xaar ñu may ko ko ngir mu sëy ji léegi est-ce que tey jii sëy bi doonatul commerce wala au juste lan moo xew li ci biir mm-hmm. dans yëpp sant yàlla la nee jigéen ñun yàlla moom moo ñu valoriser avant ñun ñuy judd ndax dañu ji góor ñi dee leen yëkkati soxna yi ngeen deen can mm-hmm. mais waxul jigéen na can góor mm-hmm. kon mba euh, sumbul lépp luñ ko may du sens am mérite la. Mm-hmm. ndax yàlla suñu borom dogal na nit takk nañ ko may ko ay millions yu ëpp yi ñu ko may te dégguñu ko. Mm-hmm. moom nag moo siw te ku siiw di nga dégg lu ne. Mm-hmm. kon loolu sant yàlla la. ndax nee naa lépp lu ko xaas defal rek la da koo mérito te jigéen ju ne boo la ngay judd ci àddina. nga lépp luñ na war a defal sa àddina ak lépp luñ na war a may yàlla da koo bind ci aras. kon ni dafa jiitu juddoom. nee naa sumbulu nag moom ay mbiram dafa ànd ak coow kon taw la sant yàlla la ndax nee naa loolu moom wax dëgg fa neex yàlla moom Sénégal moom dëkk waxkat la mm-hmm. kon nag loolu ñu ko may yàlla na doon jiglaayam te yàlla saxal ko ci sëyam mm-hmm. ci barki yonente mbaa ci moom jëkkëram sama xarit la mm-hmm. euh, te xolam dafa rëy noonu la ma sa moom bu lay may sax barki yonent bi du xool lim lay may danaan day yuqi yuqi rek jox la kon loolu ñu wax ne may na ko mbaacu ñu naan am naam amul man dama gëm ne lu am la ndax bàyyi ñaas njaay maa moom daan nañ jokkoo ci lu baree bari bari bari loolu ñu ko may méritam la sansam la te maa la ko giñal si Seydina am dañ ko mayaat lu ëpp loolu ndax jëkkëram xol bee rëy mm-hmm. te dama ko xam moo tax ma sañ koo seede mm-hmm. ndax jëkkëru sumbulu xaw ma ko miinu ma ko mm-hmm. mais mbaacu jëkkëram dama ko xam ndax am na foo xam ne jaar nañ am na jaar-jaar yu ñu jaar xol ba rëy na te mën na maye te noonu lay maye même buy may mais est tey jii du indi benn influence ci nouvelle génération bi non non mënta indi influence ndax kii moom. ah mais soxna Mariama xamante ne. taaru jigéen moom. non jigéen moom de man man man. je suis jigéen moom lu ko waaye terale. waaw mérité na ko. carrière jigéen sax dafa yàggu gii moom bu bu bu ma sukkandiku rek ci 600000 ñëw nañ may may <laughs> ndax buñ ko mayee ay milliards sax euh, da koo mérité woo. Hmm. mais bu mu xaar loolu ndaxte nee naa millions yi fi mu toll nii jànq yëpp ñu ngi xaar millions. te mooy influence bi kon. nee naa la taala sëy euh, Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam am na jigéen joo xam ne to euh, jardin mm-hmm. lañ ko cane mm-hmm. am na koo xamante ne jaa bàgg lañ ko cane manto am na koo xam ne manto lañ ko cane jaasi waaw am na kon nag bu demee am na ñoo xamante ne gëléem mm-hmm. am na ñoo xam ne jaasi loolu yëpp yàlla dafay valoriser jigéen jigéen boo xam valeur lu ñu la may jomb la nee naa daal l'essentiel gis nga ku bëgg ci millions yi takkul takkal sa sër ba mu dëgër taxaar góor yàlla dëggantaan bu ñëwee jox la ay millions ndax góor ñu dafuñu nee naa fi ku takk sa sër sa rek dañ la takk te buñ la takkee itam lu la góor yéene mën na la ko jox mm-hmm. mais tey mënoo nekk fi nag taala wax dëgg fa neex yàlla hôtel hôtel nga fëgg fa omet zo abet bëgg ñu may la ay millions mm-hmm. yenn wul maanaa de yaakaar naa bala ngay lekk ci millions yi wiccax sa loxo màtt jooy waaye boo takkee sa sër nag jigéen mm-hmm. nga takk sa sër ba góor gu ñëw takk la gis yow ful la gis yow ngor may da ko mérité macha allah loolu sant yàlla la jërëjëf soxna Mariama Sy mu sëriñ Babacar xanaa bi ma ci dese rek mooy yéen ñi nga xam ne ay soxna sëriñ ngeen doonte sëriñ nga yow am soxna sëriñ sumbulu itam ab sëriñ a ko takk yéen soxna sëriñ naka ngeen dundee ak sëriñ si ak par ak seen ak seen liggéey ñoom ni muy demee par contre parce que nit ñu bëri dañu a nekk ci seen biir kër tam di sëy di mhm. suñu borom kay dañoo nekk ci internet bi nekk ci réseaux sociaux yi di wax mhm. partout dans le monde jigéen ñi dañ leen di tiitaroo dañ leen di bégee ndax man si sama bopp laay xool exemple sama jëkkër jigéen defal na ko lu ne ci internet bi mhm. jigéen yëkkati na lu ne may ko ko mhm. te man du ma xool loolu xam nga lan lay xool xool xam ne kooku cofeel la am ci moom yéene la am ci moom bëgg la am ci moom mhm. kon nag bu dee bëgg na te yàlla yàllay tax na gumba taxlu mhm. bañ a déglu kenn ndax lu ne dina ko gis lu ne dina ko dégg mhm. dégg nga ndaxte fii yàqkat yi dañoo bari mais sumbulu jëkkëram góor yàlla la te nit ku baax la macha allah ndax ni ko déggee muy wax ndax nit ci kàddoom rek nga koy jàppee ci kàddoom koy bàyyee euh, li daal mooy mu toog sëy jëkkëru sëriñ daal taal du la dóor te du la saaga te lu mu am jox la ko nag oto yu rafet yi jabaru sëriñ yee koy dawal euh, kër yu baax yi jabaru sëriñ yee ci dëkk naan yu baax yi jabaru sëriñ yee ciy nekk waaw ñun kon ay noble lañu. ak ginaar yi ndawal gu bëri. lépp kay lu baax moom tegul si or ñoo koy takk. <laughs> macha allah kon xam nga loolu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed. nee naa fi daal lu fi baax lu ne sëriñ si la. Mhm. ndax nee naa taala. Mhm. Euh, ñun suñuy borom kër dañoo sonn. Mhm. ndax ñoom ki nga xamante ne bu guddi jotee yaa ngi yor sa xalima di bind. mal nga yor sa kurus toog ci der di ñaan. kon taala xam nga ni ñooñu wax dëgg fa ne yàlla lu leen nit jox béritoo nañ ko mhm. lu ñu am war nañ koo mën a am mhm. pourquoi pa ba duñ ko am ndax ba nit ñi dem di dem ca école ba di bind mhm. ñoom dañoo dem ca daara ja dem tarbiiru li ñu am te fii nii loo doonu doonul taalibeem doo doon sëriñam kon ñoom macha allah lépp lu ñu am rek ñun ñoo tax sax ñuy liggéey ñun ñoo tax ñuy liggéey c'est que xam nga mbir mi la la taala euh, sénégalais hmm, dañoo yàqamti dégg benn affaire def ko buzz mais Ablaye Diop Khass lii mu def ñu jëkkati na lu ëpp li may ko jabaram te kenn déggu ko mm-hmm. xëy na moom moo siiw jabaram siiw mm-hmm. kon nañu jéem sant yàlla julli ci yonent bi di ñaan seen sëy bi yàlla la fa leen cat mm-hmm. dàqa leen saytaan leen nit ñi di seen doo yàlla buñu leen ci gis ndax ñu bari ñu ngi naan dina dem ak du dem yàlla rek xam li dem mais yàlla leen yàlla sàmm yàlla la fa leen cat ba gàcce ak li ñu leen di xaare yàlla ko gis waaw ndax jëkkëram góor yàlla la sëriñ dafa yi naan ay sëriñ nangam sëriñ nangam loolu wax sa la neex la mm-hmm. ndax taala fii ku nekkul ci bu gudd bi yaa ngi ci bu gàtt bi ndax am na ñoo xamante ne ñu ngi fëgg bureau jàmbur dem di sàmbay mayaan mm-hmm. dem di def leen mais sëriñ bi dafa toog ca këram mm-hmm. woowul kenn nit ki woolu ko dégg ko ci internet bi am ci moom ñëw ñaan loo ko kon xam nga ne kooku fekkiwul kenn nit ñee ko fekki te yaakaar naa ne euh, ndox kase du forox de fu amul dara it nit ñi duñ fa dem waaw nit ñi duñ fa dem kon nag nit ñi nañu seetaat seen digganteeg seen borom ñu xoolaat seen diggante ak yàlla te nit looy seedeel nit yoo àddina di ko seede yomal xëy am mhm. nañ moytu daal wax yu ñaaw yi daal te bàyyi nit ki sëy sëyam ñu bàyyi nit ñi dox seen dox daal mhm. waaw jabaru sëriñ si nag ñoo mel noonu ndax dañoo sonn sant yàlla <laughs> sant yàlla tubarkàlla jërëjëf soxna Mariama Si mu sëriñ Babacar euh, ci leeral bu am solo boobu bokk na ci mm, fi jamono toll tey ñu gis soxna Mariama ci wàllu seet ci wàllu ñaan man question bi may laaj foofu mooy kan moo nekk ci ginnaaw soxna Mariama Sy mu Serigne Babacar ba tax moodu moodu yi li ñu ni ñu wóoloo soxna Mariama doyloo ko parce que dama gisoon bu njëkk ba Mariama so xaritu jigéen ñi la woon jigéen ñëpp ay xaritam la ñu léegi dama gis ni soxna Mariama góor ñëpp bitim réew soxna Mariama la ñuy wër léegi ban secret la soxna Mariama yor wala kan moo nekk ci ginnaaw soxna Mariama ba ba tax loolee mën a am jàppandi fi mu toll ñoo taal sant yàlla nee naa ku sëñ ku ànd ak sëñ Babacar. ndax man mooy sama sëriñ. Mm-hmm. te bu may wax ci moom fii léegi émission bi yàqu. Mm-hmm. Ndiogu Fama damay ñaan yal na yàlla tas ñu si barkeem. te yokk leeram ndax naa bu ma tëddee guddi lu nekk la may wan. Mm-hmm. te loolu sant yàlla la. te naa loo wax ren ba déwén dellu di koy wax. sant yàllaa ngi ci de. sant yàllaa ngi ci de. sëñ Babacar daal man moom laa yaakaar. ginnaaw yàlla yaakaar Seydina Mohamed moom daal moom daal moom moo may gunge. ndax nee taala Euh, du ñu nelaw guddi mm-hmm. ndax guddi lu ne la ñuy gis lu ne la ñuy jàpp jànkonteel mm-hmm. te doo yombul ci jigéen mm-hmm. yombul ci góor sax waxuma la yombu na ci jigéen ndax nee naa li ñuy li ñu am salaatul faatiha moom moo ñu ko may ndax doole bi salaatul faatiha am waaw kon nag lépp lu ñu am rek dañuy sant yàlla di sant it sama borom kër ndax mu ngi sama ginnaaw ndax taala nee naa doolee jën ndox ndax nee naa moom moo ma dooleel ndax su ko neexoon mu ne ma déet bàyyil kon bu sonal rek ma wër ci mbedd bi doon dof te dinaa ko sante yàlla ndax nee naa li nekk ci man mm-hmm. euh, dama ko donn sàcc ma ko dama ko donn waaw ta rab yi am na lu ma ci mm-hmm. jox kon nag kooku boo ko bëggee xañ loolu ma nga te danga koy sonal mm-hmm. mais comprendre na ma te jàppale na ma te yenn saa yi nag ma jàppale ma ci ci sama wàllu liggéey kon nag sëñ Babacar bu mm-hmm. ma ko waxee sama borom kër sëñ Moustapha koy ñaanal yal na yàlla yokkal xam-xamam yàlla dëgëral ko ndax moom moo ma jàppale moom moo ma moo ma wan yoon taal te ump la te xam lu bari ndax xam nga ni ma àndeeg moom sax du yàlla boole it du hasard te yow defe naa dara ump la ci te lépp sant la tawfiix la daal macha allah kon nag damay sant yàlla rek <laughs> di sant sama sëriñ sama ginnaaw Seydi Aboubacar macha allah. <laughs> yàlla na yàlla xeeb dolli. amiin xam borom dénkoon na ko ko ci def ko ci ay diggante ngir ñu bañ a tàqali ko fi mu tuddal ci wóor sax xam na noonu nu ko tuddee. ku la ndax man mi di wax ak yow. ñu naan sama xatu jëkkër la sama aawo la maay aawo te maay sama aawo bopp. Eh, ah, te itam nee naa taal eh, wax dëgg fa ne yàlla ku ma jox la autorisation doo dugg déggal lii ndax kele bi man maa ko yor code secret bi man maa ko yor te ku ma ibbil yi di nga dugg ku ma xajal it di nga toog kon loolu yëpp sant yàlla julli ci Seydina Mohamed la ndax nee naa sama jëkkër sama xarit la lu ma ko teree mu bàyyi te lu ma ko digal mu def te code secret bi nag ma wax la leen mu ngi fii sama loxo. gis naa ko ci Seydina Mohamed. Hmm. waaw ndax nee naa sëy amul benn problème ndax nee naa sëy secret la xam nga xoolee ñàkk bi laa indi woon. Hmm. indi gisul jooy. Hmm. waaye bi xam nga la. <laughs> Eh, ay may ay internet yi dimbali leen ma waaye kole ñàpp ak bu la gisul jooy bi ñëw bu doon moom waaw dama indi woon kole ñàpp mhm. indi bu la gisul jooy waaw bi yoon <laughs> taal taal daal ci weeru gàmm lañ nekk naa ko sellal ndax te nee naa nee naa daal xolo kele yi daal taal du jeex gis nga bi passeport ak visa laa ko tuddee ndaxte taalal <laughs> taalal passeport ak visa laa ko tuddee ndax bu dee sa jëkkër sa xarit la hmm. bu dee sa jëkkër da ko téye eh, ci sa loxo. Mm. nga xam bu baax ci lu muy dox xam bu baax ci li muy dugg mm. bala muy def dara tàggu la loolu sant yàlla la. mais nooy def mën a téye sa borom kër fi mu toll ak jamono sama jëkkër sama xat la boo ubbee sama néeg léegi fekk mu toog. Mm. kon xam nga loolu damay sant yàlla bu baax. du du mën-mën du kàttan du leen yàlla moo def ma jubóog sama jëkkër te secret bi du dara lu dul taala mhm. bu la teree nga bàyyi bu la mhm. digalee nga def bu la yónnee nga dem bu la soxlaa nga toog mhm. man ci loolu laay wéy lu client yi bari bari ak lu ñu fees fees ci salle bii bu fi nekk sañ ma recevoir kenn dama koy toppatoo ba pare ba pare ci ay courrier am pare ci disposition ba pare mhm. door a nekk ci leneen te loolu defe naa jigéen du ko sàlloo mhm. di nga doon sa xaritu jëkkër di nga doon doomam di nga doon ndayam dinga doon baa di nga doon léppam ci àddina di nga doon magam di doon raxam te ne naa jëkkër mhm. euh, na nga doon yaayam doon papaam doon xaritam boo defee ñett yi taala yaakaar naa ne jàmm rek ngeen am jàmm rek ngeen am. mais tey jii daal dafa loo xamante ni chaque jour nga baal ma aajo ma question boobu jigéen ñi dañ ma koy jooytu mu doon lu ma naqari. Mm-hmm. ndax taal jigéen ñu bari seen jëkkër dañ leen abandonné. Eh. jigéen ñu bari seen jëkkër dañoo takk ñaareel jeng. Mm-hmm. te du ñàkk euh, mokk mm-hmm. de communication day am ci biir sëy yi te loolu nee naa mooy base sëy. ndax taal sa jëkkër. bu liggéey jee war nga xam la mu yendoo ci bureau bu dee ca daara ja ne war nga xam la mu yendoo bu dee ca kër ga la ne war nga xam lu mu yendoo mais tey am na góor ñoo xam ne buñ duggee seen kër doon soldaar mm-hmm. indi kanamu gaynde <laughs> duñu waxtaan ak seen jabar duñu waxtaan ak seen njaboot amuñu temps bi amuñu jot mais jigéen ñi itam nañu bàyyi di profité sa jëkkër ñëw rek gaz bi jeex na nangam bi dañuy nangam bi ni nangam bi loolu day jaxase ko mm-hmm. mais da koy dalal góor da dóor daal xam nga lan mooy mboqantaal mm-hmm. dalal xel góor day dëkk dalal xel euh, da nga koy dëkkal ci dalal xel ndax góor ni naa ki dalal xelam moom mooy mboqam sa jëkkër bu ñëwee del waxtaan ak moom dee ko defal del taal gis nga sëyu njëkkee dafa xewaat maanaam ay xooj tànk raxas tànk fii hmm. pellicule manitu jël sa carte daal di dàmp say tànk jëkkër du yu baax yooyu moom da yokk say point hmm. danaa jeeg moom comme visa daa xew moom fi mu toll nii may hmm. visa par force ah. waaw dem eh? <laughs> waxtaan ak moom del xam li muy bëgg ngay xam la muy bañ waaw waaye am na ñoo xam ne daal mooy loolu taal <laughs> xam naa li ñu war a wax yëpp xajul si man foofa laay jaaree ah. tàggoo sax fi mu ne su ma la doon laaj tey jii ne la soxna si euh, ban message ngay yónnee tey jii sa mbokku jigéen ñi waaye itam soññewaale ko góor ñi parce que tu viens de yaa ngi wax nga léegi lu am solo mhm. mooy manque de communication bi am ci biir couple yi am ci biir famille yi mhm. dafa doy waar mhm. kon bu ma lay laaj sa kàddu gu mujj ak ban message ngay lancé askan bi góor ak jigéen kenn ku ne mën koo bàyyi xel ne lu muy doon waaw taala man daal li may naa see jigéen ñi nañu muñ mm-hmm. ndax ne naa sëy dafa àddina yàggul mm-hmm. te sëy jaamu yàllaa ngi ci te ne naa yàlla loo ko woo rek pour nga am ci yàlla day yomb mm-hmm. kon jigéen ñi nañu muñ xam naa ni bëgg nañu sëy mais taale naa jigéen ju nekk bëgg nga sëy mais faw sa borom kër jàppale la itam góor ñi nañuy muñal nañuy nangul suñuy defoo ndax ñu dañoo bari caprice ndax jigéen joo gis tey jii euh, bëgg nga jàppale sa jëkkër bëgg taxaw sa jëkkër boo sañoon sa jëkkër kenn du ko gën te lool bu amee yéen itam dee leen am suñuy yërmande mhm. dee leen ñu jàppale te diñuy tiitaroo diñuy sagal kaala mhm. xanaa xam nga jigéen sag moom mooy sa jëkkër di lay tiitaroo di lay sagal te nee naa bu ñu ko amee rek ñu dem fenn yéenay suñu papa yéenay suñu xarit waaw góor ñi itam dama leen di ñaanal yal na yàlla yombal leen dépassé yàlla yombal leen yor bi yàlla téeñal leen boppam itam yen bi ndax mhm. diis na lool yéen ngeen yor dafa metti dafa diis Mhm. di leen di ñaan it ñi bëgg ñaar yal nañ ko am mhm. ñi bëgg ñett it yal nañ ko am amiin ñun ñi xamante ne am nañ ay raq itam wala mhm. ñu raq yi war a ñëw yal na <laughs> amiin yaa rabbal aalamiin amiin tabarkalla amiin yaa rabbal aalamiin dinaa ne galaas ci barke Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam jërëjëf soxna Mariama Sy mu Sëriñ Babacar ko gërëm ko ñaanal ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi am sañ mën tey def yal na yàlla dolli ko taxawu dolli guddal fanam dolli wéral cëram gën koo jubale ak borom këram waaye ak mbooleem njabootam gi nga xamante ne fi daan ànd ak ñoom waaye itam sant bu baax a baax mbokk internet yi nga xamante ne ñoo ñu suivre ci à travers Vision kenn ku ci ne lay bëggam ak mébétam ak yéenam yal na yàlla sama borom jàpp ndalal ko ko ci daraje Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dig daje ci beneen jotaay ak seen émission xam sa démb jërë ngeen jëf wasalaam